kër sëriñ Touba gi ci koloban bi ma sëriñ bi ne yeesalaatal kër gi ba pare ni nak dama bëggoon ñu bañ ngeen bañ ko bàyyi mom ndax dafa diis man ko sëñ bi ñaanal ma mu oef ñu ko ak man sëñ bi ñaanal ma mu oef ñu ko ak man mais bima jëfé ba pare ni yeen yeena gis kër gi ak rafetay bi yeena gis kër kër gi nekk koloban kër sëñ Touba gi nekk koloban yeena gis rafetay bi que Serigne Touba gi nekk Colobane yéen gis matériel bi que Serigne Touba gi nekk gi nekk kolobaan yéen gis la fa nekk waaye man gisuma ko ndax dama ko xeeb ci jëf soo ko xeebee doo ci mën a commentaire dama jàpp ni la ma yéene woon sëñ bi pour def ko ci kër ga xaju fa la fa xaj rek laa fa def waaye la ma yéene moom xaju fa su ma paree xeeb ko dutuma mën a dugg ci wax ja la ma ca def ak na ma ci defoon waaye daal jàpp naa ni sëriñ bi bëgg na ma bëgg na maa baaxee bëgg na maa dimbali ni ma mbay defaral kër sëriñ Touba mu xam ni kër sëriñ Touba gii ma nekk nii tey laa ci xam sëñ Abdoulaat santoon jii jili mbay mu defar ko kër Serigne Touba geneen bi nekk Colobane nga xam ni Serigne Touba ko moom sëñ Basiroo ko moomoon waaye Serigne Touba moom moom lañ ko moo sëñ Touba la ko sëñ Basirou jox képp ko nga xam yaa fi Serigne Touba yaa ko moom muy kër Serigne Touba ni kër gii ne la mel. kër gii sëriñ Abdou Lahad Dior santoon jili mu defar ko kër gee sëñ Muntaxa sant ma ma defar ko te la ma fa yéenee def xajul ca kër ga ma pare xeeb jëf ji lool ba mënuma ci ek commentaire yëg bi ma ci yëg ne bi ma paree mooy lan sant yàlla bu baax sant sëriñ Muntaxa ba ma bëggee baax la baaxal baaxal yéene ma baax ba di ma liggéey lool ci liggéeyub seen Touba ma liggéey ci ba pare xeeb ko lool xeeb jëf ci waaye xam naa ni liggéeyal Serigne Touba kër kër kër Colobane gee lañu fa def la muy tuuti tuuti ci man jàpp naa ni pay gi képp kuy kuy nekk sénégalais wala képp kuy jullit xaj nga ci ci yéene naa ñëpp ñu bokk ci ndax dama ni bu ñuy ubbi jumaayu naa Jinaan ji bëgg naa fexe ba kër gi pare sëñ bi ñëw fi ma doon liggéeyloo entrepreneur bi guddi ak bëccëg am benn équipe bu guddi ak benn équipe bu bëccëg mooy ba nu jëkkee jàpp datu ouverture jumaay ji Masalikul Jinaan bi ñu attaqué liggéey bi noonu nag ci biir liggéey bi ci la ma sëñ bi woowaat ni ma mbay dégg naa ni ngay liggéeyee ndax bëgg a pare waaye dama lay xamal ni date boobu ñu jàppoon pour ubbi ci jumaa ji dañ koy randal pour nga nga liggéey ndànk ak sa sago looloo ma mayaat chance ma mën a def étage mën a yokkaat li ma bëggoon a yokkaat eh, bi yàlla defee ñu yokk ko ba pare xamoon naa ne sëriñ sëñ sa taxa Premier gennam ñew Dakar mo nek ni ci buy ñew ci kër gi la jëm liggéey loo ma kër Serigne Touba gi nga xamni premier duggam Dakar hein ah, ci kër gi lay dal war fa ñew dimanche tok fa altine talaata àllarba alxamis ba aljuma ñu ubbi juma ji mu door ñew nek suñu gan juroom benn fan sama gan ganu dakaro ganu képp ku dëkk Dakar ak gépp mourid yëg-yëg boobu nan nga yaakaar ne loo nga xam ni waxuma la ni musul am waaye amul mbaa bariwul mu tombe ci man suñ mun dafaa fexe ba ma jariñoo loolu kooku mënumaa nettali yëg bi may yëg ci man sama bopp ba mu ma waxee ni ma eh, yëg liggéeyal kër gi su eggee su ma ñëwee falaay daal falaay nekk yëg-yëg boobu laa yëgoon tey jii bi mu ko waxaatee fekk na man jàpp naa ni ba may liggéey nit ñi dañoo jàppoon ni mbay jee ni mu ni mu ci kii parce que damaa jégoon ni Serigne Touba fii dal si ma jàpp ni bu ma doon bu doon jamono yu jëkkee dama naan la bi fi Serigne Touba nekkee jàmbaari Serigne Touba yi ku ci Serigne Touba liggéey loo woon kër ah ni la jógal liggéeyal ma kër gu ma war a dal si nan ngay def ca nga am moyen man boobu laay loolu laay yëgoon ci sama bopp bi ma ko sëñ taxa waxee amatuma woon fenn soxla amatuma woon dara dewuma umra mosuma raté umra mosuma raté wala aj màkka bougé wu ma Dakar ndax kër gi pare ba sëñ mun Mountakha ñëw ci sant yàlla bi pare tey mu ni ma ma di ko xaar ci kër gi ma mbay maanaam ma jëlal caabi yi nga indi ajjuma caabi yi ànd ak say bokk ak say xarit ak ku ci yéene indi caabi yi ba dimanche man ma fekkaat la fa kooku sëñ bi mënuñu def lu dul ñaanal sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg ci ci xam ne loolu moo na ko nu bëgg a baaxee mbaaxam rek ci la xaj moo tax mu bëgg ko baaxee ñu ko koy sant bu baax di sant tépp képp ko xam ne ñëw na fi di sant képp ko nga xam jàpp nga ci wala taxaw nga ci tey jii ci organisation bi eh, cant gi ma koy tàmbalee ci sëriñ di ko tàmbale ci soxna yi Baali Muntaxa mi nga xam ni xoolal tey ñaa ñaata nag la rey ñaata xar lañu rey ñaata ginaar lañu rey li fi toog li ñu fi togg ci aw ñam pour di xaar ma indi caabi yi kooku xoolal yéene ji mu am ci man ci lépp lu ma am ci sëñ Muntaxa rek ci moom la jaare ma di ko ci sant moom it ca di ko ñaanal sama diggante moom na ma wax woon ma sama diggante yow Serigne tubaa laa ko seedeel ñoo ngi ñaan yàlla ba taxawaat ci kanamu Serigne Touba ñu sàmm diggante boobu soxna soxna Bali Mbacke yàlla na fi yàgg moom itam ci wér.